ne Modou Lo ku ko daan rek daanaan ko xale boo xam ne bii bëre dafa dee ci yaram baa ngi noonu quatorzième victoire Modou Lo oh kii arrêté na ko eh, la benn attention sa gauche attention sa gauche Henry sa dogoon jarbaatu booy ñax ala gis lu ayca. ayca Omar kii mooy Serigne Ndiaye numéro 2 Coriace kii mooy Coriace. doomu Fass doomu Ndakaaru moo bëroon ak Omanga moo bëroon ak Dictionnaire moo bëroon ak Zambala moo bëroon ak Ousmane Ndir numéro moo bëroon ak Libitor moo bëroon ak Ndiaga moo bëroon ak Cobra moo bëroon ak Eumeu Sène kooku mooy Serigne Ndiaye numéro 2 Eumeu Sène Senior la mujjee ki muy bëreel nag Bébé Saloum Baye Mandione la mujjee daan moo bëree nag l'an 2000 moom Bébé Saloum moo bëree nag Amath bu Lamsar maa ngi ci Bébé Saloum maa ngi ci Bébé Saloum moo bëree nag Amath moo bëree nag Xees moom Bébé Saloum moo bëree nag Garga Mbossé moo bëree nag Jadli moo bëree nag Ama moo bëree nag Moussa moo bëree nag Modou Anta moo bëree nag Mamadou Ndiaye moo bëree nag Baye Mandione moo bëree nag Franc moo bëree nag Reug Reug oh daanaan la de moom Bébé Saloum am na ay top 5 moom Bébé Saloum combat bi mënta yàgg loolu moom bu yaboo ngeen bàyyi ci xel te bul ci dàq daanu. bul ci dàq top 5 bul ci dàq dóor mu kaw tamit nga riñaan yeggale man ngaa dóor mu kaw tamit nga won ko ginnaaw dem sa yoon Bébé Saloum mooy borom top 5 yi moo yóbbu top 5 Jadli sama xarit ba borom Angleterre wala États-Unis maa koy nuyu Jadli maa lay siyaare suma xarit suma waay ndeysaan moo yóbbuwoon top 5 Jalli moo yóbbuwoon top 5 Gambie moo fa yóbbuwoon Pape Xees moo fa yóbbuwoon Amadou Lamsar moo fa yóbbuwoon Garga Mbossé moom Bébé Saloum loolu ay top 5 la Serigne Ndiaye numéro 2 ngi noonu moo ñu woon ginnaaw mafia bu dëgër bi Calcio 94 mbokkam yaayam Mbaye Sakho mbokkam yaayam Petit Production. borom marché Ocass marché Ocass ba ca Touba jaay ba ngoon di compter di dem Serigne Ndiaye 2 moo ñu woon ginnaaw Bébé Saloum lañ jàkkaar sama nijaay man ca Touba maa ngi koy nuyu. Serigne Ndiaye moo ñu woon ginnaaw nijaay nuyu naa la tàccu na ko bilaay du yàgg Serigne Ndiaye ki ngay bëreel nag daanaan la de danga fi jële door mu fayu door ci kaw door mu jël ko door mu jël ko fàq doole doole doole bañ na caxabal mu bañ bébé bëre na caxabal plaqué oh eh eh bébé doon na mboot jiitu de wala. wala Ndakaaru am na waaye vaar la ñu jëm vaar la ñu jëm doy na waar de ah, ah man damaa yaakaar Serigne Ndiaye daan na ko gaay kay xanaa bi moom bébé Saloum lu rëy Bébé Saloum daa bëri lu rëy. lu rëy la bëre. ah way Serigne Ndiaye na ko ndeysaan Serigne Ndiaye ngoog ponkol la soxla. bi Calcio 94 mbokkam yaa am Mbaye Sakho Sop mbokkam yaa am Petit Production borom marché Ocass marché Ocass ba ca Touba da jaay ba ngoon di compter di dem Serigne Ndiaye 2 moo ñu woon ginnaaw ba ba Sall lañ jàkkaar lool sama nijaay man ca Touba. maa ngi koy nuyu. Serigne Ndiaye moo ñu woon ginnaaw. Ndiaye nuyu naa la tàccu ko. bilaay du yàgg. Serigne ki ngay bëreel nag daanaan la de. da nga ko fiy mu fayu. door ci kaw door. mu jël ko door mu jël ko. fàq doole doole doole. bañ na caxabal mu bañ bébé bëre na caxabal plaqué oh eh eh bébé na mboot jiitu de wala wala Ndakaaru am waaye vaar la jëm vaar la jëm doy na waar de ah man damaa yaakaar Serigne Ndiaye daan na gaay kay xanaa vaar bi moom. Bébé Saloum lu rëy la bëree. Madou Diouf. Bébé Saloum daa bëri lu rëy. lu rëy la bëree. ah way Serigne na ko ndeysaan Serigne Ndiaye Ngop nanam ponkol la soxla. dama ne Modou Lo ku ko daan rek xale boo xam bii bëre dafa dee ci xale baa ngi noonu 14e